حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات sëriñ Cheikh Mbacke xalifa sëriñ Modou Faty Khary ginnaaw bi mu génn àdduna démb ci alxames ji diwaanu Thiès tey jii ci ajjuma ji yemoo fukki fan ci weeru koor andi nañ ko fii ci Daaru Karim ngir jébbal ko boromam. Mbacke TV. bi ñu jullee ajjuma ba noppi ci teewaayu xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacke. ak ay kilifa yu takko takku ñu ràññee ci sëriñ Basiir Mbacke Abdoul Khadir sëriñ Amsatu Mbacke ibnu sëriñ Sohaybu sëriñ Mamour Mbacke ibnu sëriñ Falilou waaye sëriñ seex Baara Laat ibnu sëriñ Abdou Lahad Baara sëriñ Yusu Diop responsable moral daayira Hizbut Tarqiyyah ak ay kilifa takko takku rawatina njabootug sëriñ Massamba Mbacke Mbacke Kadior TV teew fii ci Daarul Karim ngir fekk dencub sëriñ Cheikh Mbacke xalifa sëriñ Modou Fati Khary taalibe ngir fekke dencub sëriñ Cheikh Mbacke nekkoon xalifa sëriñ Modou Faty yi sëriñ Cheikh Mbacke amoon ab taxawaay lool ci kër sëriñ Massamba Mbacke waaye rawatina ci communauté Mouride moom mii nag moo fi bàyyi ko démb ci alxames ji yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru koor tey jii di ajjuma di fukki fan ci weeru koor ñu indi ko fii ci Daarul Karim ngir jébbal ko boromam ci teewaayu xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacke Bassir ñu ko ñaanal moom Serigne Cheikh Mbacke nekkoon xalifa Serigne Modou Fati Xëri suñu borom yokk ay leeram te taas daw wane la ak maamam ja Serigne Massamba Mbacke. xuqal bukaau ala saadaati amwaati tabkil araadi alayka samawaati أبكي عليهم يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرقى ستر ساح لكن خاموا زراعا لإحياء الدجنات باعوا فضولا بسكر الله قالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات فحيثما برست ليلى ببعجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاته ينسون ليلى وسعدا في غيامهم مستانسين بأسكار وآياته حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هند ولبنى في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده زهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأزول التي تنفي الرونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حسن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالغضاء رضاه ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ سي فتوهات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الموضوع الذي ينفي النجازات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والحزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي شريعة في بدء وغاياته ورفقة وهو إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سور تب يكفي المريد مريدا ذا غوايات كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال ودها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي سوهدا وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى حسوس النفس جملتها يهي علوما من المولى زنيات